jaajëfate sama gars yi Mister Shake la Marème Faye Sall moom ngeen di gis nii muy fecc di Mumbai Marème Faye Sall gars yi xool leen gis ngeen de première dame première dame mooy fecc nii vraiment nañ ko seetaat mag bi bongo xool leen ko première dame di xawaare xamuñu ndax lii palais de la république la xool leen nit ñi ñëw gis ngeen gis ngeen lii gis ngeen lii gars yi gis ngeen xool leen lii rek xaw ma waa ji li mu tudd xaw ma Ousmane takk Macky Sall nee na takkul ñaareel Marème Faye Sall première dame di fecc bu leen fàttali sëriñ bi fi wane muy fecc vraiment kaay lii benn vidéo la boo xam ne dama ko gis ma ne il faut que ma def ci commentaire ndax Sénégal vraiment ñun famille fay sàll li ñu nekkee dafa doy waar trop trop dafa doy waar su ma leen ko mënoon indilaat sax dama leen koy indilaat ngeen xool parce que lii lii lii euh, vraiment man ba ma ko gisee dama ne noonu lii mënul nekk première dame ak dëkk bi fu mu toll nest Sénégal fu mu toll ci problème ci mënd ci mbënd bi ci lépp yow amuloo dara looy def lu dul ñu lay wayal ci pale ba nee takkul xool leen lii première dame dañ ko war xam ci dem ci hôpital yi n'est-ce pas dëgg daan teg di ñuy waaj tëj mu jéem a fexe ba malade yooyu ñoom fu ñu leen dugal inondation bi nit ñi nga xam ne seen kër yi dafa taar mais xool leen ko première dame mu taxaw nii lii est-ce que war na ko def dama leen di laaj xool leen ko muy sànni loxo yi xool leen ko nii kii est-ce que yëg na dara ci yaram kii est-ce que élection yi ñu sàcc moom lay célébrer. li nga xam ne yow askan bi nee na Macky Sall da kaa teg xëy na moom lay célébrer gars yi bu am ngelaw ngeen baal xool leen lii xool leen lii rek xool leen lii léegi daal bongo yi ñoo moom réew fecc xawaare sabar léegi mel na Sénégal lii daal moo fi nekk waaw jarul ma leen di wanaat leneen jarul ma leen di wanaat lu bëri gars yi mais vraiment lii dama ko gis ma ne non il faut ma def ci vidéo parce que parce que euh, Sénégal fu mu toll ah ñu jóge ci ay élection ñu jóge ci ay élection yoo xam ne ah, xaar ma wàññi ma wàññi volume parce que lii mën nañ mën naa leen woon image rek wàññi volume ah ñu jóge ci ay élection yoo xam ne dëkk bi dafa ndoroon tàkk loolu Ousmane Sonko tàkkul mais xëy na ñoom Marème Faye Sall lii la ñu xam dañoo dem ba xam ne ñoom ñoom moom Sénégal te dañ fiy toog ba deux mille trente cinq wax ci yëpp loolu la loolu lay célébrer nii parce que Ousmane Sonko bi ma gis président Sonko bi ma gis pareegul pour jëlee fi Macky Sall. ñoom ñoom loolu la ñu xam am nañu ay garantie am nañu ay garantie yu baax yoo xam ne sëriñ yi jox na leen ko wane na ko ah sëriñ Modou Kara wane na ko ñun ñi euh, euh, euh, Mansour Sy wane na ko ñooñu dañu am ay information boo gisee ñu dem ci Macky Sall c'est parce que fu wóor lañ ko teg parce que xam nañ ni dëkk bi ci li ñu jàpp ci Macky Sall moo koy yor du Sonko moo koy yor Youssou Ndour ñooñu ñëpp gis ne askan bi bëgguñu Macky Sall waaye terewul ñu dem ànd ak askan bi loolu dafay wane xool leen Marième Faye Sall loolu dafay wane ne ñii fi ñu téye réew mi xam nañ ko fi ñu téye réew mi xam nañ ko sëriñ yi ñoo leen jàppale moo tax ñuy célébrer seen victoire am nañu assurance ne Sonko du def dara. Khalifa Sall du def dara Barthélémy Dias du def dara ndax ñooñu am na ñu i poste Sonko mooy maire de Ziguinchor Barthélémy Dias mooy maire de Dakar Ahmed Aïdara mooy maire de Guédiawaye ku nekk am na sédd nañ la li ñu lay sédd te Ousmane Sonko nee buggul Sénégal yàqu comme nag buggul Sénégal yàqu loolooy wane ne Macky Sall bu forcé troisième mandat comme ni ko Sonko waxee Macky Sall bu forcé troisième mandat ah du gouverner kon soo ko nangu ne ne Macky Sall dina forcer troisième mandat ñoom nag ñoo ñu waxoon waaye yow askan bi ñoo ñu waxoon Macky Sall bu gañee élection yi day def troisième mandat loolu la ñu waxoon fexe nañu ba Macky Sall njuuj jàj mën nañu wax ne moo gañee élection yi parce que yéen ko ci bàyyi yéen a d'accord ne am na quatre-vingt-deux am na ñoo xam ne dañ ne quatre-vingt-quatre la yoon mais yéen yéen a d'accord ne quatre-vingt deux la am xëcc na Pape Diop te dina xëcc ñeneen yéen a ñu bu defee def troisième mandat ñun gisuñu lan moo mën a tere Macky Sall mu def troisième mandat gisuñu parce que Sénégal li ngeen bëgg mooy yomb da ngeen président Sonko moom kese mu xeex xeex Clédor temps yi gis nañ muy doog a génn Clédor bi ñu doog génn waaye campagne bi yëpp kenn déggu mu ñuy wax ay wax pétrole ak dugg na fi dañoo sonn ci wax pétrole wax leen ci élection yi nan la Macky Sall def ba sàcc loolu sax sax leen mu ci doon wax loolu d'accord naa ana yaanaamaan ana ñoo lànk ana ñëpp Sonko rek ngeen xaar génn ñu dóor ko bal mu dee pour sénégalais yi xeex Macky Sall loolu la xam Serigne Mountakha loolu la xam sëriñ Laye ñoom ñëpp xam nañ ne jeunesse bi fi mu nekk lenn rek la am mooy Sonko moo tax ñu leen di tiitalee dañuy jàpp Sonko Pape Alé Niang woy septembre dañ koy jàpp woy woy pour jox leen ay objectif yu rëy yoo xam ne yéen a ngi préparé septembre ñëw kenn du jàpp Sonko seen xol yi jiif noonu lañ leen di naxee Sonko Sonko Sonko Sonko dañ koy raay dañ koy rey Pape Pape Alé Niang Sonko dañ koy yóbbu Kédougou Barthélémy Dias daaw Sonko dañ koy jàpp septembre affaire Adji Sarr mais Sonko kenn du ko laal Macky Sall foofu la leen di naxee yéen au lieu ngeen toog ngeen révolté wu parce que amu liggéey ngeen toog ngeen révolté wu parce que amu leen lekku leen naanu leen ndox mi mu ngi seen kër yi. hôpital tante ñu koy jaay ñu ngi jaay pétrole bi sawla loolu wax nañ ko sacc mi ci réew tecc bu bari bi au lieu ngeen xex lool non non da ngeen di xaar ñu japp Sonko pour ngeen doog a wala da ngeen di xaar Sonko joxe ndigal Sonko neexon na waxon na leen du joxe ndigal fi ba 2024 Sonko du joxe ndigal Macky Sall man lima gis ni day def 3e mandat te kenn du ci mën dara ñu ni fi nek nak di xex di xex man awma jot bobu aw ma jot nekk ci internet bi di xeex ba deux mille vingt quatre aw ma ko booy xeex da xeex boo xeexul nga bàyyi Macky Sall ak Sénégal yi un million yi ko voté xam ne xamuñu lu xew réew mi xew li xew ci réew mi nga bàyyi leen ak Macky Sall mu jaay lépp mu def lu ko neex waaw mais nekk fii ci réseaux sociaux yi di yuuxu sa guddi Macky Sall lii Macky Sall laa gisuñu njëriñ bi bu dee Sénégalais yi ñoom bëgg na Macky Sall di leen def lu leen def bu dee sénégalais bëgg nañu sëriñ yi di leen di leen kiifloo xam naa ni ñu bëri dinañ ma saagate parce que mois de mars lii laa leen waxoon ba ngeen jekkoo Macky Macky Sall waru leen ko woon bàyyi mu rëcc ngeen bàyyi ko mu rëcc ñu may saaga di ma saaga non yow Sonko yow da bëgg yee fitna Macky Sall lii Macky Sall dafa gën a yées wala dama leen di laaj Macky nee na lu fi amoon dootu fi amaat te loolu lay def kenn ñemewul wax ku wax ñu dóor la bal Idrissa bu jaabi anam ana Abdoulaye euh, euh, euh, Diatta ana François Mancabou dafa mel ne léegi loolu lay dur ah. loolu lay dur ku ñu rey rek ngay fàtte la moo tax ñu bëri di wax ku ñu rey nga perte nga perte président Sonko dañ ñu leen waxoon xaar leen après dinañ leen jox conseil man newoon naa leen dina Macky Sall dina sàcc élection yi te dara du xew newoon naa leen dañuy bàyyi ba xel yi giif ñu ne non non garaaw ñu def recours wax naa leen ko wala waxuma leen ko man maay Mister Shake lépp lu ma leen wax da ngeen koy gis xam lan laa leen di wax Sonko kenn du ko laal Macky Sall loolu la xam Sonko du en tout cas du Macky la moo koy laal du France koy laal parce que xam nañu bu ñu ko laalee dëkk bi tàkk Sonko tamit du génn xale yi ne dem leen xeex parce que xam na ne bu ko defee Macky Sall massacré leen kon léegi Sénégal nan lay libéré woo. Sonko daal day toog ci seetaan te wax na dëkk Sénégal de buy libéré wu leneen moo koy libéré xëy na Macky dina juum ba def leneen loo xam ne nag Sénégal yi dinañ révolté wu. mais fi mu nekk leen rek moo mën a loo jeunesse bi mooy ñu rey Sonko wala ñu jàpp Sonko te Sonko du ko def xanaa ñaan leen yàlla Macky def leneen comme mi ngi jaay hôpital Dantec wala mu def leneen mu ngi ni tëj Ousmane jaañ mën na am Ousmane Diagne dee ci kaso bi. mën nga def dara loo xam ne nag mooy la goutte qui fait déverser déverser le vase mais du jàpp Sonko te Sonko xam na loolu moo tax Sonko fu ko neex lay tax mbàmbalu Sénégal kenn du ko dóor bal kenn du ko jàpp mais Sonko pareegul pour nekk président 2024 man gisuma xiif du Sonko xiif gisuma ko ndax Sonko moo ñu ne Macky bu forcé troisième mandat 2024 du gouverner. kon sonko jak na ci bopum ne Macky dina forcer waye duñ ko bayyi mu continuer nek président yow déjà ba nga ko bàyyee mu nek président rek fofu nga yàqee lépp gisuma xif sonko ba jaralu ko bakkenam té wax na dëgg lutax muy joxe bakkenam pour sénégalais yi sonko xalé la xeyna dafa ne damay xaar comme ablay wat numu xaaré fek 10 ans wala yooyu ci sa ba xeyna sëriñ yi ko wax yi Macky Sall lañu andal nañu waxante dëkk lan moo tax Pape Diop dem ba Touba ba mu demee Touba est waruñu ko woon wax yow kujje bi moo la wooteel waa Touba kujje la kon defal lii la askan wi sant mooy nga ànd ak kujje waxuñu ko de Touba nee nañ joxuñu ko ndigal waaye ñoom waxuñu ko ne danga ku jéeg moo la wootal da war a ànd ak ku jéeg gars yi vidéo bi boobu moom laaj mais Marième daal gis ngeen li ma li li euh, ma ne mooy Sénégal dëkk bi nit ñi sonn nit ñi ci kaso bi moom mu nekk di mu mbaay di ci c'est pas la première fois c'est pas la deuxième xelam dafa dal Marème Faye xelam dal na xamna ne dina tok senegal ba 2035 amna ay assurance yu wóor assurance nag fan la ko jëlee xaw ma opposition bi la ko jëlee xaw ma si bi la ko jëlee mais mom leer na ko ne senegal ñom ñom mom senegal gis ngeen rakam Adama fay limu def fi fan yi di dàq nit ci ci autoroute bi dara fekk ko ci doomu jambour nga jël taxi jambour nga tok ak barre de fer direct waaye jàpp ñu Mansour fay moo ñëw ñu bàyyi ko mu lii mooy Sénégal bu dee nag yi lii ngeen bëgg ñu bàyyi leen ak seen Sénégal ñu di gis ngeen macha allah ñu ngi nii ñu ngi nii géej ñu wër ñu ngi liggéey ñu ngi sant yàlla waaw mais ñu nag ñu sañoon li ñuy dund yéen tam ngeen dund mais mais yaa mais on verra te si mënti am daal dinañ xam léegi leen partagé naa ba leen bi cherché ba beneen ñu defal leen vidéo nag review us and leave us to that message.